mais balaa boobu ñaan yàlla tey dama bëgg ñu ko ci li nga xamante ni moom mooy diggante seet ak sarax ndax dégg naa ku xam seet nga dégg naa ku xam sarax nga dégg naa ku xam tegtal nga dañuy faral di dégg sax ñu naan bu fekkee ne yow da nga bëgg xam sa bidiw demal ci sëñ Modou Thiaré mu xoolal la nga xam sa bidiw nit ñi bàkk nañ la ci wàllu bidiw maanaam mbirum tabiha te nit ki bu xamee biddiwam xam saraxam su ko neexee sax bañ a sangu diggante seet ak bidiw ak sarax laa bëgg nga tojal ñu ci ginnaaw Sénégal yëpp bàkk nañ la ne borom xam-xam nga. jërëjëf euh, dégg mu nekk laaj boo xam ne laaj bu am solo la. Mm-hmm. ndax. ñaankat yi bari nañ bunt yi itam bari na waaye bokk na ci xeeti ñaan yi nga xam ne ñoo gën a gaaw a nangu mooy nit ki nga xam ne moom ngay ñaanal nga fexe boo xam tabiaam fexe boo xam biddiwam fexe boo xam rawxaanam ndax bépp doomu aadama boo xam ne dinaa ci yee sëriñ si bépp doomu aadama boo xam ne ñëw na ci yow am lu muy sàkku nga jàppale ko ci fànnu ñaan ak lu mu mënti doon aajo bu mënti doon boo fexee ba xam kookee biddiwam xam ban biddiw la ak waxtu wa muy fenk mm-hmm. lépp loo xam ne yaa ngi ko koy liggéeyal mm-hmm. ci waxtu wa biddiwam di fenk lépp loo ko ci defal da ciy gaaw a gis résultant cent pour cent ci lu gaaw a gaaw a gaaw mm-hmm. nga xam ne nekkul ne nit day ñëw ci yow rek na la nangam laa bëgg nga nga nga di ko ko joxe ci anam yoo xamante ni maa am na ñoo xam ne dañuy ñaanal ay nit te loolu bàyyi wuñ ko xel mais nit ki soo bëggee li nga ko defal mu gaaw cee gis résultat 100 pour cent su ko jotee. wala bu fekkee yow da nga toog fi nga toog defal ko ko. nga bëgg boo paree rek mu gis ko da ngay fexe boo xam nit ki. tabiam xam biddiwam ba xam biddiwam ban waxtu lay fenk lépp loo koy liggéeyal nag nga liggéeyal ko ko ci waxtu biddiwam di fenk loolu doon na loo xam ne lu am solo loolu la te sëriñ su bëri bàyyiwuñ ko xel beneen bi ci toppaat mu aju ci wàllu seet seet nekk na loo xam ne euh, anam buñ koy defee itam nekk na anam goo xam ne anam gu am solo la ndax nit ki li may faral di wax rek nit ki bu fekkee xam na saraxam. bu ko génnewee. Mm. daanaka mën nañ ne mën na toog lu yàgg yàgg yàgg yàgg dootu yittewoo ci jëmmam dem ci benn sëriñ naan ko ñaanal ma. Mm-hmm. waaye loolu nag dafa doon loo xamante ni maanaam lu jafe la. Mm-hmm. ba tey mi ngi aju ci ki nga xam ne dafa bëgg a seetlu ay mbiram. Mm-hmm. listixaar à distance générale. kooku bala nga koo defal listixaar maanaam wala ni nga koy listixaare war ngaa xam jëmmi nit ki tabiaam war ngaa xam jëmmi nit ki. biddiwam boo ko xamee nag ci ngay xam ne kii tabiam lii ak lii ak lii la war a génnee sarax sarax nag yemul fenn mën nga gis seetal nit gis ko saraxam doon sarax boo xam ne boo ko calculé mën nañ ne sax du weesu juróom-ñaar fukki dërëm nit saraxam doon sarax boo xamante ni du weesu ñaar téeméer waaye mën nga seetal nit saraxam doon sarax boo xam ne mën na ko sax bañ a àttan ndax mën na àgg ci ay million kon sarax yi noonu la demee ci mbir mi waaye képp koo xam ne fexe nga ba dem ca ka ko xam te man ko mhm. fexe ba mu defal la seet boo xam ne seet bu jaar yoon la mhm. lam la wax mhm. te méngoo ak li nga xam ne moo nekk ci yow nag maanaam mu gis la gis goo xam ne gis gu wér la bu la tegtalee sarax nga def ko incha allahu laa yow mën nañ ne mën nga toog lu yàgg dooy toowaat beneen sëriñ boo xam ne da ngay dem ci moom ngir mu jagal say mbir